Thank you. dal leen ak jàmm ñu bëri doon posé wu question bi ndax kii di Sadio Mane day quitter Liverpool wala déet mu mel ni nag yuuxu ba jib international sénégalais bi Sadio Mane a finalement décidé de quitter le Liverpool loolu nag moo ngi ko xamle après match bi nga xam ne moo doxoon démb ci diggante Real de Madrid à Liverpool mu nekkoon rek finale Ligue des Champions gannaaw moom Sadio Mane moomu nag mu souhaité ses adieux à ñi nga xam ne nag ñoom ñooy coéquipier yim doon jouer foofu ca Liverpool et entraîneur

nag waxagu ci lu leer. salaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu.